marché syndicat doon jabar bi gën a rëy te ñu fiy jaaye ay fruits fii ci Sénégal nekk fii ci pikin banlieue bu dakaar bile marché am na ab cosaan bu yàgg lool. waaw ah, marché syndicat ci biir Dakar la cosaanoo foofu ñuy wax kër du foncier numéro un dafa jàkkaarloo nag béréb ba. ñu fi syndicaliste yu mag yooyu nekkoon ñoom Ibrahima Sarr ñoom Ousmane Ngom ñoom Seydina Fall ñoom ñu dem di fa wàcce ay Fani Mango Dambay Mango nit dem naa noo ngi dem ca syndicat ya wuti fa Mango loolu indi turu syndicat loolu ay quarante nangam la woon dem ba màgg ñu leen place fii grande mosquée nekk am armel yu fa nekkoon moo armel yi ñoo fa nekkoon soixante un Kabiru Mbodj ndax ki soixante un monsieur le président de la république Senghor moo waxoon ne dafay soxla foofu dafay def grande mosquée pour musulman yi daal di ménager armel ya maasale ko maasale marché ba jël marché ba localiser ko indi ko Colobane mu nekk marché Colobane boobu nu bokk bokk fa nekk ci cent bañ fa nekkee cent deux nekk fa ci cent yàlla dogal ñu nekk fa nekk fa nekk fa ba 74 marché ba xajatu fa ñu jëlinu fa yóbbunu àngal mos fi jàkkaarloo ak bul duwaañ bi ñu yóbbu àngal mos ñu nekk fa soixante-quatorze soixante-quinze ba dugg soixante-seize 21 février ñu jëlee nu fa ñoom dañ leen di jox góor noonu lañu dal leen leen di jox ma foo xam ne marché lay doon moo gën fu ngeen nekk ñu toxal leen. daal di nuyu woon tefes yaraax nu xam ne comme mënunoo jaxasoo ak beexum géej gi nu daal di fa ne fii baaxut. Mhm. mu indi nu fii marché poissonné waaw ay tool a fi ne woon tool tubaab bu ñuy wax munaaya ñu indi nu fa ne nu fii baax na nu xool ko muy àll nu xam ne marché mënta nekk ci àll bi ndax boo fa yoree xaalis guddi ah mënees na koo duubal nu wan nu fii di dex gii marigot bii ñuy wax Fass marigot fii nu nekk tey bi ñu ne ko wanee ku ñuy wax mbay maane mbay ak góor gi na Diop man mii may ndaw ànd ak ñoom ñu xool ba fii baax na 76 nu nekk fi ba léegi marché bi dem na ba yaatoon na lool waaye dem nañ ba xam ne fi mu ne rempli na ay nit ba ne fekk mu doon ab barab bu dalal ay ndaw yu bare bari bàyyeekoo ci Sénégal ak li ko wër marché syndicat bile bari na li fi nekk ci ay xeetu liggéey yi maanaam saaru société la boo xam ne kenn ko nekk ak métier ba nga yor am na ñoo xam ne lay buy rek kay seen métier am ñoo xam ne xolli gerte rek mooy seen métier am ñoo xam ni ay machine lañ yor di garaate ah ginjeer gi am ñoo xam ne seeni machine lañ yor di wal poobar di wal café ah di wal buy bi ba mu doon pëndax am ñoo xam ne pëndax buy boobu ci la jël liggéey ko ba defar ko ay saar yoo xam ne day mel ni ah ay bekki suukar fekk buy lañu ko liggéeye ak meew ak produit yooyu ba nga xam ne day mel na mu war a mel ñu di ko fi jëlee sax ba di ko yóbbu bitim réew am ñoo xam ne màdd ji ñu ngi koy jaay waaye am na ñoo xam ne dañoo féetewoo di ko def ci ay siwo kaste ko laal ci kaani laal ci xorom defar ko ba nga xam ne daal mën naa dem ba déwén tëdd yàqu yooyu am na ñu koy jënd di ko teg ci CP bi muy dem Europe am ñoo xam ne dañu koy jël moment bi demee ba amatut ñu yóbbu ko ci seeni place di ko togg di ko jaay di ko def ay casse mille francs casse cinq cent muy jar lool liggéey yi daal façon yi am na ñoo xam ne koko euh, bi di jóge Côte ñu ngi ciy liggéey ay ngato ñu ngi liggéey ay tàngal yoo xam ne fii lañ koy liggéeyee te yi dafa jar lool taabal joo romb ci dëkk bi ñu nga ko fa teg di ko jaay waaye nag pour état accompagner nu wala ñu defal ni benn ndimmal boo xam ne dañ ñu jàppale daal loolu moom mu amagul waaye ñu ngi góorlu wax dëgg yàlla. mu Moulay Mouhamadou Cissé dafa bàyyi lépp ngir wut lu mu am ci njaayum buy mii moom mi lee di ci gis boppam bu baax a baax. Moulay Mouhamed Cissé lañ may gën a xamee nekk marché syndicat bu Pikine. non buy bi Burkina koy lañ buy doom bi lay jël soq ko Mali wala Burkina wala Togo indil ko waaw ñun bu ñu ñëwee dañ koy wal rek ñoom foofu lañ koy liggéey waaw liggéey bi maanaam ñoom ñoo ko liggéey parce doom bi moom lañ la ñuy liggéey ñi jigéen ñi ci liggéey pëndax buy ñi ci diggal buy dagg waaw wax dëgg yàlla moom am am bi mettul quoi parce que noir la maanaam gars yi ñu bari dañ am ñoo xam duñ ci mën a yëngatu parce que maanaam liggéey bi ca wet ga ay jeunes yu njaxlaf lool nekk ci seen yitte. lii di jinjeer bu ñu soppi ngir jëfandikoo ko ci beneen anam jaarale ko ci yële jumtukaay ngir mën a amal liggéey bu mucc ayib. waa ji nga def mi ngi nii dañ koy jël ni raas ko mu set ñu weer ko ba mu su ko defee ñu koy wal di ko détaillé par kilo ak liibar ak genn wàll liibar noonu lañ koy defaree. waaw bu fekkee ne kilo bu ñuy wal ba pare ñu ko koy jaayee mille deux cent liibar bi six cent genn wàll liibar bi ñu ngi koy def trois cent. saak lañ koy jëndee ñu koy jëndee saak bi sans départ rek ak ni mu wàccee. kilo bi mën na ñëw sept cent mën na ñëw huit cent. buñ ko jëndee raxas ko defar ko di ko jaayewaat kilo bi 1200 600 ak genn wàll bi 300 comme ni ma la ko waxee woon wol ba pare dañ ko wol ba pare ci machine bi fee daal di si def limon citron daal ci ménager tuuti ndox rek daal di koy takk di ko def mbuus 500. parfois moom client yi bu ñëwee rek sans départ mën na noo ñëw mu gaaw ci njaay mi bu gaawee rek moom man nga cee gis sa bopp mais su xawee yee xam nga njaay mu tooy moom mooy loolu quoi. lii mooy buy ak jinjeer bu ñu jël boole ko mu doon benn. ay ndaw yu bëri ci la ñuy yëngu ku ci mel ni nguur si ko ci beneen réew ñëw fii ci Sénégal ngir daan dooleem. lii sampoli man Zakaria Cissé waaw waa Niger moo ko debal bi quoi lii songu bi moo nekk nii quoi waaw songu bi moo nekk nii moom moo ko defal lii voilà lii ci biir ci biir kër gi laa ko defal waa suukar laa ko tagal ci cëm bi mu ñor bu baax bu baax bu ma satu ko ci paam bi après ma boole ko lii ak kii quoi voilà loolu laa ko defal lii am na ginger am na sample lii moo nekk ci sample lii moo am marqué bi moo ginger voilà waaw benn fenn bi xam nga jaay bi mu day métti quoi dëkk bi daa wow dafa dëgër quoi voilà dëkk bi moo loolu quoi léegi quoi waaw benn saa yi neexi na wala saa yi neexul quoi. masa joono masa joono beneen boor ci marché syndicat bu Pikine file nag foo sànni sab gët bi lay xeetu fruit ngay gis ñu koy woowee màdd waaw marché waaw marché nag moom bi mu door a commencé boobu seer na trop waaye instant yi moom wax dëgg yàlla yomb ndax boobu ñu ko doon jaayee trente mille waaye fi mu nekk nii mi ngi jar bii ma jënd ci maa ngi ko jëndee dix huit mille waaw wàcc na bu baax a baax moom wax dëgg yàlla wàcc na bu baax loolu la jënd trente mille tey nga jënd te soo mën naa dem ci ginnaaw sax jar na wax dëgg yàlla wàcc na moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ñoo ngi ca faraatu daal suñu wërsëg waaw fii maa ko jëndee ci biir marché bi waaw ci biir marché bi laa ko jëndee waaw waaw prix yi waaw ah, ñoo ngi fi gis nga fi mu ñu ngi francs trois cent am na téeméer a wax dëgg yàlla bu njëkk moom seera na waaye fi ne moom xaw naa wàññeeku bu baax a baax waa wax dëgg yàlla ñoo ngi ci fa daal suñu wërsëg wax dëgg yàlla. waaw marché syndicat su may ñëwee dinaa indi xaalis waaye marché syndicat neexutal takk ndax bagage bi day yéeg a wàcc léeg-léeg nga ñëw fekk mango bu cher léeg-léeg nga ñëw fekk madd bi cher léeg nga ñëw it fekk mu oyof waaw waaye daal jafe-jafe yi bari na lool ndax daal madd bi léegi niñ ñu ko yéegalee pour nga am ci dara léegi jafe na non taxawul fenn nag madd madd bi taxawul fenn bu jafee dina am saako 30 mille bu tane di nga am vingt mille bu gënee tane di nga am dix mille waaw foofu daal la gën a nekk pour mu wàcc ko daal jafe na moo tax jaaykat yi nag sonn lool wax dëgg yàlla waaw sonn lool boo ko jëndee fii dangay fay ñu dajjil la defal la ci ay siwo boo dajee ba pare pour transport bi la yóbbu problème la waaw soo génnaatee am oto problème waaw bagage bi seer oto yi seer kaas yi seer kuddu yi seer pour nga génn ci jafe na. waaw ñun tey dañoo ñëw fii nii pour jënd si madd waaw ça dépend quoi ndax instant yii da ngay ñëw saako màdd yi day ñëw parfois ba vingt cinq mille ñii ñëw parfois ñëw vingt mille parfois sax mën nga ñëw jëndee màdd trente mille franc alors que yow màdd yi soo xoolee li siy jaayaat ak frais yi nga siy def rek doo si dara te bañ toog vu que ñu ne instant yii xool situation dëkk bi dem nañ ci usines liggéey nañ façon bu ne liggéey nañ fu nekk am nañu contrat liggéey ba affaire yëpp jeex mais xam nañ ne instant yii nii benn boulot rek yoratul dëkk bi quoi. te soo nee ndaw nga aussi da ngaa bëgg a defar sa avenir mënoo yem si benn boulot usine ñu lay fay méttiwul soo xoolee li fay da ngay nekk xale responsabilité nga da nekk taaw da ngay fay courant fay ndox participer si dépense gàlle bi alors que soo xoolee li ngay dese pour créer sa avenir yow du ma dara te da ngay obligé yow ñëw si màdd jaay màdd. balaa ngay doon benn âge bi nii xam nga tool foo xamante ne war a war sa life suba nu mu war a demee nga topp si yenn yoo xamante ne lu ñàkk fayda surtout topp politiciens yoo xamante ne après duñ la amal benn njëriñ quoi nga topp ñooñu xamante nekk si politique bi imagine fii ñaata booy ñoo fi dee ñooñu liggéey bu baax sax amuñu te saa yeewo ñu yeewoo gars yi neexal lan ay journée cinq mille ñii nañ kii laa àndal kii Macky kii Sonko kii lii seeqan ñooñ ñooñ mën nañ mën nañ mën nañ mën nañ defar sa avenir defar ko defar boo xamante ne bu ëllëgee yow danañ si njëriñu quoi topp ñooñu dama war a xam ne dëkk bi dëkk jàmm la dëkk bi dëkk jàmm la dëkk bi du dëkk ay ku la neex am nga droit ànd ak moom faral ko mais nañ booloo doon benn quoi defar dëkk bi. waaw dama si sama propre business saa su ma joobee nii weekend bi nii liggéeyu ma wàcc sur le terrain jaay madd yow da ngay liggéey loo xam ne si mad bi sax yow am lu luñ lay fay fee ngay dang dangi sax yow doo ko am ma damay su ma ko jëndee nii sant yi sama mère moom koy toogal moom koy toogal maado bi alors que léegi dama koy jël def si ay pot dem si place yi ay BCAO voilà koy jaay pot 500 pot 1000 francs loolu lañ koy jaay après rek luñ ci am baax na quoi. mango itam nee na fi gàññi fii ci marché syndicat. luy fruit te mu am ci mbeddu ndakaaru yi boo ñëwee fii fekk ko fii ngir liggéey fi nag jafewut leneen lu lay gën a marqué boo yegsee ci bile marché syndicat muy salte gu metti gi mu doon lu askan wi di mettit lu maire yàlla dogal na moom lañ def léegi ministère de inondation na jàpp balaa nawet bee ñëw ndoxum taw bi ànd ak ndox mu bon mi na fexe canal yi am fii UCG moom mu ngi jël mbalit mi ni mu ko war a jëlee waaye nun nag noo koy récolter na bopp yóbbu ci ci ci bag yi te loolu maire yi moo ko waroon def ñoo waroon yor barrière yoo xam ne yi dañu dooni barrière di jël mbalit mi di ko yóbbu ci ci bag bi waaye nun loolu sax du sunu problème ñun ko ci am mbalit doon taxaw ba nga jël ko booy fay ñetti junni wala ñeenti junni di nga ko fay yóbbu ko ci bag bi ndax comme sunu bopp la ñuy defaral ndax ñu bëgguloo nekk foo xam ne baaxul doo ca dund dund gu baax. fii gis ni mel tooy xëpp. benn oto nangu fee dugg jafe-jafe bala ngaa dugg sonn oto bu la yeb balaa génn sonn loolu tamit war nañ leen teg ci yoon xaj na ñoom it suñu kaasee seeni i droit xaj na ñu mën leen a teg ci yoon waaye ñun ñi jënd kër yi daal sonn nañu ndax loo indi ci xaalis doyut waaw. lu mat euh, dix ans ndox maa ngi ci kaw tali bi kenn mënu ko dindi biir syndicat bi xat na pour nga jaar fi julli ji sax mënoo ko ndax xeer ak palisor ak lépp sëfër yi itam sonn nañ waaw. dëkk métti na mais safari sonn nañ boo départ bi sarse jëm Géejawaay dañ dagg ci yow deux mille wala trois mille nga jóge fi jëm parcelle dañ lekk ci yow lu mat quatre mille ngay dëpp itam noonu xam nga loolu mit na trop coono bu rëy la waaw man am naa fanweeri at ak ñett yoo xam ne fii lima ma fi gis métti na trop mit na trop jànkonte bu mit métti métti la ñu nekkee am nañ garage garage bi fii parking bi ñu nekk nii weeru dee dix mille laay fay. ñaari junne weeru dee ñaari junne. safoor yi maay fay droit yi chaque chaque kii danaa yóbbu lu man ñaar fukki oto ñaar fukki oto yi bu nekk trois mille xam nga xaalis la mu ngoog weeru dee trois mille clando yi nga gis nii yëpp waaw. ngir saafara jàngoro yi nu mel nguur gi amoon na ab projet bu mu tëraloon ngir soppi bi lay bërëbu jaayukaay def ko mu méngoo ak jamono wante ba joonu yàllay tey furaas daal di xëddeem état nag waxoon nañ ñu dañ koy liggéey ba ñu rigage doon ba pare bay defar plat waaye ba tey jëf yi sotteegul waaye marché bi xam nga nii mu mel dëppoowul ak jamono te président moo ko xoolal boppam ba ne daal dëppoowul ak jamono waaye dina ko liggéey ni mu liggéeyee jumaa yooyu liggéey ko pont yi liggéey ko stade yi delloo ko askan wi yooyu yëpp nee ni mu ko defee yéen ci réew mi ngeen bokk dinaa leen ko defal jox leen ko ah gratuite waaye ba tey sotteegul numéro lay dafa yéex torop parce que projet boo koy liggéey bu toll nii da ngay liggéey benn maquette boo xam ne mooy mandargaal liggéey bi jox ko ñu ngi koy defal ñu xam ne li ñu leen di bëgg a defal nii la mel. loolu maa ngi koy demandé booba tey mënuma ko am parce que maquette dafa war a am ah bokk na ci liy accompagner liggéey bi maquette bi taajee waa marché bi ku ñëw xam ne nii la sunu marché yi mel ñu continuer parce que nun noo gën a bëgg liggéey bi ñu tàmbali ko te yeggale ko ci jàmm. moom kay li ñu bëgg ñu defaral ñu marché bi defar bu rafet waaw defar bu rafet. jafe-jafe yi daal métti na ñu ngi ñaan nag dimbal ku ci mën a dimbali rek nañ ci dimbali ca yàlla rek tax waaw sonn nañu daal. ay at ngi nii marché syndicat benn xarkanam bu ni mel la yor mësuta soppeeku moo ne dey lu toll ci 500 000 francs ci suñu koppar daañu ko fi jëlee wante jafe na bërëb bile daal di set teg ci ànd ak kaaraange.